na ngeen niveau d'aménagement bi niveau primaire maanaam dugal ndox de courant def drainage eau pluviale def assainissement Ce ce ku ko ku c'est dafa laaj coût effort yu bëri la structuration financière innovante en relation avec FHS pour permettre aux sénégalais de ñu am comme vous le ko gisee nag liggéey bi sur le terrain depuis le 2 août ce lu ko def nañ fi état des études, def sauf étude d'assainissement mais adduction d'eau électricité yooyu yëpp pare na ba concessionnaire yi muy Senelec muy muy muy muy eh, SONES ñoom ñëpp ñu valider ko donc liggéey bi tàmbali na voirie bi ñu ngi ci 14 pour cent ci zone bi nga xamante ne moom la ñu owee zone prioritaire d'urgence ñu dañoo bëgg fii ak fin d'année ñi dëkk fii mën a ñëw dëkk moo tax ñu bëgg a jiital jiital ci liggéey bi phase bi nga xamante ne 10 hectares la loolu nag war nañ ko pare fin novembre waaye bu loolu weesoo dañuy continuer liggéey bi sur les 30 hectares ñu war a mën a permettre sénégalais yi mën a dëkk ci 2000 logements L'ol nak àpp nañ ko euh, fii ak 9 mois parce que euh, leneen li nga xamante ne moo am solo mooy euh, walu assainissement bi dañuy def ay études pour mën des def station d'épuration L'ol nak ligue bu profond la parce que du ñun kese dañ ciy liggéey ak ministère de l'environnement ñu valider études yi prise bi préfet jàppale ñu ñu fay impenses yi def travaux yi loolu moo tax ñu ne la corps d'état yëpp dina yemb fi dans mois mais il bi moy jël touti temps waye ak lo ci munti 9 mois fi dina habitable gens. am sa keur nga meuna ñew li aussi euh voie d'accès bi voie d'accès bi vous bo joggé fi nga meuna dox ci tali ba euh, rencontré déjà le préfet bi dégagé nañ ko deux fois deux voies euh, pour nit ñi di loolu mo nekkone information yi ma leneen projet bi président daf ci bëgg xalé yi dëkk ci gox bi ñu ci gis seen bopp ci tout ce qui est tertiaire manam kër pavage pour permettre xalé yi ñu liggéey une satisfaction parce que entreprise bi chaque semaine dina utiliser presque 50 ndaw pour pavage sans compter les autres emplois euh, ti ti ti day parce que actuellement ni projet bi day nek en phase d'extension. di xamal ni fi projet bi ñëwunu ci àll bi rek commencé liguey mais projet bi su paré su lepp paré warna yaatu ci à peu près 200 hectares donc il est vrai que fi moy première phase mais il fallait que nous réfléchir ci assiette bi yépp ba nga xamanteni ñi fi dëkk ci ëllëg duñu dund affaire inondation duñu dundu sore ay école ay dispensaire ay hôpitaux yooyu du fi am mooy ñuy dëkk fii du ñu soxloo dara feneen parce que lépp dañ leen fekk si fii incha allah études yooyu def nañ ko ba pare nañ ñu ngi dérouler mais aussi dañuy wax ci réew su bâtiment di dox lépp war na dox moo tax dafa am dimension sociale projet bi mooy dañuy def de telle sorte que ay sénégalais rek ñoo ciy liggéey motax tu ci voirie bi ñu créé ay routes en pavé ay routes en enrobédance, mais les routes en pavé c'est un avantage moy non seulement day yags, entretien day yomb té ba kay défar day utiliser ay sénégalais yu baré lolu motax voie secondaire yëpp pavé lañ ko def voie primaire yi nag ñu def ko en enrobédance mais ci biir étude bi fexé nañu de telle sorte que ñu fi dëkk ñëpp inshallah su projet bi jéxé dañ leen relier ci ben réseau d'assainissement bu performant boo xamante dañ koy connecter ci ben step step bobu ñuy wax dina am capacité plus de quarante mille personnes fiñ ñu koy euh, implanter rek lool mo ci dess mais étude technique yi daanaka avancé na bu baax a baax. Euh, ñun suñu liggéey d'habitude dañuy def liñ naan euh, logement témoin donc normalement ben ngeen fi waroon fekk wala ñaar waaye vu que ñi euh, ministre euh, Abdoulaye Seydou Sow ak madame la secrétaire d'État Victorine Ndeye euh, booleel ci liggéey bi dañoo xarañ xarañ boo on s'est dit du ñu def benn wala ñaar dañuy dem tout de suite ci 2000, mille parce que xam nañ ni ñooñu am nañu euh, capacité yi aussi ñu nit tegal nañ leen équipe bo xamé né da leen di topp subaak ngoon guddeeg bëccëg

Euh, maa ngi wax rek ni aménagement bi ngeen ci gis ci biir ameublement bi rek mobilier national la donc pour dire que projet bi euh, day laal fann yu bari wax nañ ci mobilier national wax nañ ci gestion des déchets ak PRN yi nga xamé né UCG dina ko fi teg wax nañ ci euh, jéego yi ñu def ak CETUD ba nga xamé né mille premiers habitants yi fin de l'année inshallah buñ fi dé ñew ay transport en commun mën leen indi lolu pour wané anticipation bi benen bi tamit ñu wané né euh, projet bi ay xalé dañ ci wara liguey parce que xeyu ndaw yi lañ nek donc tay bo leen gisee buntu yi ngeen gis les portes en bois wala les portes en métal même aussi porte euh, alu euh, les fenêtres en alu ay entreprises sénégalaises yo xamé né fi lañ nek ñom ñoo ñew diko liguey directeur général de la SAFRU dellu si na si loolu noonu tamit day wone né ñun duñu joxe ay logement rek dem suñu yoon dañuy fexé ba politique publique yi président Macky Sall joxe euh, te ñu ciy recevoir ay instructions de nos autorités ñi nekk suñu nous euh, ñi ngi koy jéem a doxal ci ni mu gënee. xanaa euh, traduire rek li président de la république son excellence Macky Sall di wax bis bu ne chantier yi ñu suivre au prix, au plus près ndax moom mbëbëtam wax na ko la que les sénégalais ñëpp xam nañ ko en matière de logement Safri wax dit ko au début aménagement VRD primaire la woon mu ne des inondations au Sénégal moo tax dañuy def ba tertiaire ba ngeen ba muy sénégalais yi lu gën mu fekk it problème logement nekk pro nekk lu soxal sénégalais yi ndax kër dafa nekk li nga xamante ne euh, sutura la borom kër bu ne ñaan nga yàlla am foo dugal sa donc mu nekk ñaari problématique nga xamante ne ko waru ci kaw ñu équipe déterminée bu ciy liggéey boo leen déggee propos wu euh, DG Safru wax par rapport ak aménagement yi ñuy def euh, DG wu euh, AGETIP confirmé ko Amadou Thiam DG construction tamit confirmé na ko ci kaw ci site yi waxuma sax site bii nii ndax ci biir ci Bambilor bi rek am fi 200 hectares lépp luñ ci war a def ngir ñu nekk ci cadre de vie ndax waxatuñu logement projet projet logement au-delà du logement c'est un cadre de vie qu'il faut créer Ni ñi ci mettre en pratique en pratique concept bobu ñuy wax fi ngay nga infrastructure sociale de base yi ñu am équipement yi am école am dispensaire am ñu ngi 200 yi dégg koy ne 200 yi ndax projet zéro 200 foog faut que dañoo dañ suñu xel war na dal ndax nu ko bi di waxee le plus difficile c'est de mettre le train sur les rails waaye boo ko xasee ba def rek ay augmenter kii la rek da ngay yokk vitesse bi rek yëf yi mën dem. plateforme bi sax fi mu toll plateforme de 2019 dañu ibbi woon plateforme d'inscription tey def nañ ci yeneen jéego ndax egg nañ ci plateforme de suivi ndax 2019 ak léegi la ca mën a xew bari na possibilité bi nag euh, lu tax ñu egg ci plateforme de suivi. dañu nekk ci li ñuy wax amélioration continue boo defee dara gis ni war nga ci dolli yeneen module ñu def ko ba tax tey ak plateforme de suivi bi ña mu ña mu inscrire wuloon ba tey dinañ mun continuer di inscrire waaye ña inscrire woon 2019 xëy na taw na nañu site yi nga xamante ne projet bi du fa yegg tey gën nañu am information ci fan ak fan ak fan yan site lañu ibbi ñu jox possibilité ñoo ñu inscrire won ñu mëna changer seen inscription amna ci tamit ñi nga xamantene dañu inscrire won waaye dafa yag ñu faté seen numéro inscription lolu yëp nek jaxlé ci ñom ñu ñu koy euh, ñu ñu koy wax ñuy ñu mettre en place aussi cette plateforme pour leur permettre vraiment pour jappalé leen information yoy ñu soxla ak li leen jaxal ñu jappalé leen pour ñu mën ko saafara